ngir abonné si seen bi da ngay def TV TV saa njuugu te bi ngay bës daa di bës V bi bind saa njuugu nga soog a dugg ci seen YouTube bi ngeen abone ñi ngi kontaan ci abonné yu bees yi di am ci ñëpp mbégte ak kontaante ñii partagé aussi kontaan nañ ci ñoom ah ñay bës jëm nag <laughs> ñooñu tamit kontaan nañ ci moom waaye xam nga commentaire daf cee am solo te li ngeen di commentaire yëpp dafay gën a tax courage bi yokk ñu gën a góorgóorlu ah kon kontaan naa ci yéen de kontaan naa ci yéen de léegi nag abone leen TV Sa Ndiogou moom ngay tappe ci YouTube bi ngir mun a dugg ci seen bi seetaan yi ñu jot a def yëpp mi ngi ci biir kon gars yi ñu démarré Ndella Madior Diouf moo changé thème bi jonge la fa def jonge xool ko cuuraay ga mu def ca kaw ba noppi bindu jonge ñu seetlu Ndella nu yëf yi tëddee aywa groupe whatsapp bi. asalaamaaleykum Ndella maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam man maa changé thème di nuyu sama xaritu xol président de la république ñu ngi koy nuyu bu baax mais di nuyu tamit sama chef de parti Madické Niang di leen nuyu man maa changé thème bi def ko jonge ci waay boobu maa si kaw maa def di leen bégee di leen ziyaar. di leen wax ne jeeg dugg na si groupe bi jeeg a wane ba ah waaw waaw waaw kontaan naa de jeeg dugg na si groupe bi de ndeelaa ngoog bi sama parti ba nëga wax dëgg fa yàlla permanence bi yëpp dakaa gongo ndeela moom xet gu neex lek foo mu romb moom day bun ndeela bu la rombee mu bun buni bu rombul mu bun buni teen fee jaar mu bun buni moo taxit affaire bi commencé na am solo barke Serigne Saliou kontaan si yow ndeela waaw ndeel ndeela la ci ci ci cooraay ba ci kaw moom nu mu tudd bee moom xanaa mooy saraxatan ci ci cooraay bi nga def bi nga def nee ca kaw xanaa saraxatan la moo taxit kër gi nee na bunn de <laughs> mi ngi xeeñ xunn waaw waaw eh, dëgg yàlla salaamaaleykum si <laughs> Asmari Gueye maa ngi leen di nuyu dégg de maa ngi soog a si groupe bi dégg nga de <laughs> wakal wakal wakal dama jékki-jékki rek Bax <laughs> maa ngi nuyu Pissa Bax di ko ne dugg si groupe bi maa ngi sant baax di gërëm Asmari borom Suqali Saloum. Sidi Sidi defe naa bii mooy saraxataan bi bii mooy saraxataan bi xam nga ndee la lu mu def nii lu am solo la. xam nga jeex boo nekkee si groupe dangaa wane ni jeeg a ngi si groupe bi parce que gis nga ay góor kese bu nu nekkee si groupe dañuy perdre lu nga xam ne mooy notion de la de temps waaw mais ak ndeela doo soxla météo parce que lii mu def rek mooy wane ni seddaay baa ngi annoncé man ba mu jëlee cuuraay ba aj sa kaw ba noppi daa dee def jonge loolu mooy wane ni seddaay baa ngi waaj ñëw waaw ma ne yéen ngeen di xaaru wala lan ndella lan moo tax nga jël li nga daal koy def ci groupe bi dangay xaru wala lan yow xam nga kan moo jiite groupe bi li mooy lan dindil affaire jonge yi may wax ngay wax tuddee dem bi jonge dindil eh, dama ne salaamaaleykum man Asmani Gueye ma ne maa ngi si groupe bi <laughs> Asmani Gueye Asmani Gueye borom lan mbéngee déedéet maa ngi si groupe bi maa ngi leen di nuyu dafa mel dafa mel ni bàyyi lu bàyyi li ma xel <laughs> maa si groupe bi <laughs> Asmalik Gueye borom Lat Mbengue dëgg <laughs> dëgg yàlla eh, ma ne yoo si selo yow lu fi ñaax bañ koy macc ah li def lu ci aay jonge laa at ci kaw boo mu ne nong tegal la cuuraay bi saraxatan bi ne sa kaw ah fii lu fi ñor dama ne dama ñëw rek pour wane ne jeeg day jonge waaw di nuy nag sama prési maa ko sentir ci boppam Macky ndeela moo tax ma ne bisimilaay jeeg ñëw na leen ko bisimilaay bisimilaay gan ñëw na leen ko bisimilaay a ah, ndeela fi nga ngeen nooy na waaw saa si na bu fekkee def xet gu neex xetu diriyanke xetu jongama bu dee dafay xëtt sa xol yaay seet waaye ñun ndeela lañ gëm ñun ndeela fi nga ko natt foofu la yaa ngi toj bi macha allah mais mais dama ni la groupe a fait de la ségrégation ou pas Asmalik Gueye il est dans le group personne n'ose parler mon nom mais il faut parler mon nom c'est Asmalik Gueye lan la ngeen maa ci groupe bi. ya yéen a yéen tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan dinaa leen boole yéen maa ngi leen di boole ji maa ngi leen di boole. ma Moustapha Niass bu bu la neexee nga wax ko ku la neex waaw Ndella lim def dara niwu ci ndaxte jëlëb kii affiché ko ca kaw ku naqarit naqari toppal fële waaw ay la yéwén ñun amuñu ci luñ ciy ragal mu naan ten ten ten ten la boole booleel marché bi am ci groupe bi ak xanaa li Macky day Macky Macky gaawal ñëw dégager Ndella ci groupe bi rapidement Macky quel des asalaamaaleykum soxna Marème Asmalik Gueye Asmalik Gueye <laughs> Asmalik bu leen bengee mi ngi si ligne bi maa ngi lay nuyu soxna Marème <laughs> Asmalik Gueye soxna Marème soxna Marème jéggal ka jégal ka Marème dafa xii Ndella dafa xamutoon instruction yi nga xam ni moom la groupe bi di doxee rek jéggal ka man ak moom noo bokk benn parti dafa xamul rek jéggal ka jéggal ko dafa ñëwoon rek pour indi animation si groupe bi dama ne eh man waxuma Macky sundee waxaate waxaatee ma quitté groupe bi foofu nag falaayam booy boo nga génn ko ci groupe bi rapidement allo kii ma ne soxna ma euh, Asmali Gueye borom la mbéy nga Asmali Gueye <laughs> maa ngi ci ligne bi Asmali Gueye maa ngi déglu wagal yëpp <laughs> Asmali am nga sens lii mooy mën a am jàmm am da nga ñëw expliquer foo ba nga ni bi lii lépp di xew ci groupe bi nga expliquer foo nekkoon. salaamaaleykum sër Koko maa lay nuyu di jégalu si yéex dindi bu nga xam ne yéex naa ko dindi ndal barke Serigne Touba barke maam El Hadj Malick barke Seydina Limamou Laye ba barke bu Kunta si Ndiassane dama doon nelaw dama forbut si la jékki-jékki lu dégg message yi def kundung kundung kundung kundung ma ne kon groupe bi am na lu fa xew si la ñu observé daal di xool si kaw la gisuñu bind jonge ma ne jonge bi kan moo gi ma gis ni Ndella Madior moom moo ko maa ngi jéglu bu baax maa ngi jéglu bu baax li dugg naa <laughs> Asmalik Asmalik Gueye Asmalik Gueye dugg naa <laughs> dugg naa maa ci groupe bi <laughs> dugg naa allo Pouchin ma ne man la Asmalik Gueye wala kenn nekkul si bi allo dugg naa dugg na dëgg dëgg yàlla Asmalik Gueye Kaolack Kaolack Kaolack ndangaan allo Christian Asmalik Gueye Asmalik borom lan méngee lan méngee Asmalik Gueye mi ngi ci lign bi wakal yi maa ngi envoyé wakal <laughs> borom lan méngee dëgg dëgg yàlla <laughs> Christian soxna ma dem soxna ma dem précis soxna ma dem Asmalik borom lan méngee dëgg dëgg yàlla ma ngi ci ligne bi précis madame madame madame madame précis Asmalik Gueye digg digg yàlla maa ci ligne bi abonné leen da def TV Sagne